nga xam ne ñu koy def benn bu ci nekk dañ koy tànn am ñu ñu ko jagleel ci njabootu Sëriñ Tuubaa ren nag suñu borom baax ba mu tànn ki nga xam ne moo di Sëriñ Bara loolu nag foog naa ne xéewal bu rëy la ci mboolem mbokki taalibe yi ñun ñu koy def ak ñi nga xam ne ñu ngi topp waxtaan bi ndax kii di sëriñ Bara Ndiaye mooy ki nga xam ne doomu sëriñ Tuubaa ji feeñ ci dëkk mu tedd bii ëndaale ngërëm ba sëriñ bi gërëm mag yi nga xam ne ñoo nekkoon ci moom ëndaale ak wilaay ku ma sëkk sëriñ bi ci boppam ci bataaxal bu jaar ci soxna Faatija ne ko di nga am day maqaama yoo xam ne mboolem say kem daañu la ci daañu la ci ñeene kon ku day noonu ba Sëriñ Tuubaa wax waxatu toll noonu ci moom dem baat ci moom képp ku ànd yow sax dana texe te kenn du ko isaab kon day mel ne moom mooy rabbu mboolem murit yi ndax képp ku di murit ànd nga ak Sëriñ Baara kon nag lii sëriñ Bara xéewal la gu rëy rëy rëy ci ñun di barkeelu boo xam ne sëriñ bi baaxe na ko mbooleem mbokki talib yépp te foog naa waxtaan wi fii waxtaan te bàyyi Cheikh def ko léegi ak sëriñ Maxtaar noonu ñu sant bu baax ñu waxtaan ci wàllu ndono naka lañ koy sàmme foog naa ne ci mujj waxtaan li nga xam ne ënd na ko sëñ baara gën naa leeral yu bare bare bare ci kan moo di Cheikh Mamadou bi te yi nga xam ne ñu ngi koy def loolu lañ ci jub ngir jàngale ngir yaatal ngir tasaare xam-xam foog naa ne bàyyi Cheikh bi muy tëj loolu bokk na ci ponk yi nga xam ne bokk yi sàmm doona la ci la bokk te sëriñ bi fi mu toog loolu mooy def bàyyi kon sëriñ Bara yàgg sa bokk te yi nga àndal sëriñ bi ngeen jotal ay cantam di la xamal ne boo demee na ko jotal kii di Cheikh Moustapha te tey muy sëriñ Bara ci kaw suuf tey xaritam di la xamal ne sant na ko bu baax ci ni nga xam ne noonu ngeen yëge cër bi mu ngeen jox ak ni nga xam ne noonu ngeen ko ak rafetal bi nga xamante ne bii def ngeen ko ci ak ni ngeen ànd dikk te kenn ku nekk ci yéen rek bu dikkoon dafay doy sëkk kon loolu day màndargaal seenu xër ak seenu fonk li nga xam ne tànn na leen ba jël tur bi tudde ko Serigne Bara te moom loolu mu jàpp ne waru rek la def kon loolu ngeen jotal ko Serigne Moustapha mu jotal ko mbooleen njabootu Serigne Bara gépp muy ay cantam yoo xam am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di xam ne itam lii nga xam ne def na ko ren ji dañ koy wéyal ci yeneen njabootu sëriñ bi ci at yi nga xam ne moo di ñëw di sant itam ki nga xam ne moo di sëriñ Jaxal ndax moom day léegi xam naa fukki at jataay bi at mu nekk moo ngi ñoo koy bokk te waxtu wu dikkee thème bu ñu fi jël buñ ko waxtaanee ba noppi bu dellusee dana defar waxtaan boo xam ne dafa yaatu ba ñëpp dana ci mën a jariñu ren nga déwén tey jii fu sore sori lu jóge dikk ngir jëmmi bis bi kon sëriñ Cheikh xam nañ si yitte ci kër gi waaye loolu ñun ñu fekkoon démb duñu bett ndax sa maam dafa nekkoon sa xarit xam naa ne yaa doxoon dikkam ak sëriñ Aliou ak dikkam sëriñ Aliou ak sëriñ Saliou mu ngi si kanam sa yàggul kon boo defee lii loolu day wane rek sa sàmm coloré ak jàpp boo xamante ne bi jàpp nga ko soxna si kon ñu ngi lay sant di la gërëm ci coono yi nga xam ne yaa ngi koy toggoo saa su nekk ba waxtu boo xamante ne bii léegi xale bi ñëw na nga ànd ko ak ñun ba mu jeex tàkk maa ngi fàttaliku ci at yu mujj yi waxtu mu sànni dikk dangay ñëw ci kër ga. soxna si boole ci liggéey bi ngay daw di dem ak dikk loolee nag ba tey jii jàpp nga ko bàyyi kon ñu lay sant ñu ngi lay gërëm di la rekk rek li ñu yàgg koo def nga yàgg koo teewe te bis ñoom na nga xam ne sa bis la ak mu lekk di sant itam sëriñ sëriñ Fallou mu Cheikh Mamadou Lamine Bara ci teewaay bu rafet dikk na fi ànd ak ay rakkam sëriñ Fallou ak sëriñ Abdoulaye Djibi ñu ngi lay sant bu baax sëriñ bi di la gërëm yow itam ku amoon pas-pas ci soxna si nga ngeen amoon ak jaxasoo waxtu bu nekk daal dikk ci am di ko nemmeeku di yëkkati sa alal di ko jox addiya ci ay mbir yu takk te boobu xëy na jamono ji neexul sax ni mu neexee loolu itam bu ndëgër ñaa ngi koy sàmm si diggante ak ñi nga xamante ne bii ñoom la fi bàyyi mu soxla baal fi nekkoon di sa bàjjal ak sëñ Mahfous mi nga xamante ne bii moo moom nga ñëw fekk su fii tey jii ci bis bi kon yow ñu ngi sant ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm di sant itam booleem mbokk yi nga xam ne teew nañ fi ci bis bi dafa dafa guddi moo tax du ñu jar ñu lim ñëpp waaye kenn ku nekk ci ñoom jëmmi Sëriñ Tuubaa moo la fi indi kon foog naa ne lim bi. daanaka jëru ndax Sëriñ ak yàlla mi nga xam moom rek moo tax ñu def gis nañ leen te ñoom ñu am fay te danañu leen fay di profito itam comme jataay bi day mel ne ci jataay yu mujj lay bokk ci wàllu conférence yi di sant itam presse bi ci seen taxawaay bu rafet ndax bañ tàmbalee ba tey lépp loo xam ne wax nañ ko fi rek yéen a koy jàllale ba foog naa ne waxtaan bi àgg na foo xam ne tey ci ak kawe loolu def ngeen ci seen loxo kon yéen itam na ngeen xam ne ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm di sant di sant yi itam bu baax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yore comité ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko te Baye Cheikh ni jiite leen bokk na ca Serigne Cheikhouna Moussa Mour Habib ak soxna May Mour Fat Xari bokk na ci Serigne Mamour Amdi Serigne Mourtala Bousso Serigne Moustapha Mbacke ak ñoom ñëpp rek bàyyi ñu kenn suñu li ma toog nii du ma mën a teewlu tur yi kenn ku nekk waaye daal ñu ngi leen sant di leen gërëm nga xam ne bi nga xam ne ñu ngi koy def ci kuréel boo xam ne kuréel bu tuuti la ñu ci dajee di génne loo xamante ne bii waxtu nekk day yéem nit ñi ci thème yi am solo yi nga xam ne dana am solo ak ni nga xam ne ne leen koy joxe loolu ñu ngi leen sant di leen gërëm mboolem conférence yi nga xamante ne bii jaar nañ fi ak mboolem borom xam-xam yi nga xam ne ñëwoon nañ participer ci panel bi nga xam ne ñu ko doon def ci code de famille di xam ne rek ne jataay yi daal ay jataay yi xam-xam la yoo xam ne sëriñ bi moo ci joxe ndigal ngir ñu ci dundal guddi gi ak di ko waajal leen xadar ndaxte weeru koor sëriñ bi daf ko fonkoon di ko dundal saa su nekk kenn ku ne gis na ne ni nga xam ne doon nañ koy dundale ci biir Touba bëriwut ni fu ñu koy dundale ci anam ku mel noonu te lii Serigne Cheikh Thioro wax léegi guddi la joxante li nga xamante ne bii cër soxna si la kon day mel ne njaboot soxna si am na ci cër koo xam ne ñu ko ci am bëriwut kon fépp fu ñu koy dundale rek ci biir dëkk bi ak ci biir réew bi foog naa ne kenn waru caa jiitu njabootu soxna si loolu moo tax sëriñ bi xam loolu ba joxe ndigal ci ñuy tëral jataay xam-xam yi nga xam ne damay faral di wax ne ay université itinérante la ndax nit ñi dañ leen di war a jàngal dañ leen war a yedd leen war a xamal te bu fekkente ne bi nit ki weesu na fu muy toog ci daara di yor alluwo wala mu yor ab jukki waxtaan yu mel nii mu jaar ci xarala yu bees yi foog naa ne dara gënu koo gaaw dara gënu koo efficace ci jàpp ndal ba mu xam na nga xam ne moom la war a xam ci sëriñ bi moom la war a xam ci diine moom la war a xam ci isla kon loolu moo tax jataay yi dañ koy wéyee te bu ñu yem ci di ko waxtaan bi rek li nga xam ne moom ci gën a yitteel mooy fexe ba lépp luñ ci waxtaanee rek ñu tënk ko ba du réer ndax itam ay borom xam-xam ñoo koy def di ci gëstu ay waxtu yu bari kon loolu dañuy war a fexe ba di ko man di téye di ko man di garde te foog naa itam loolu ci conférence bi dégg ngeen ñu ne kat bokk na ci li nga xam ne mooy sàmm na loolu moo di fexe ko pérenniser loolu nag matuwaay ci jël mooy cër yi nga xam ne ñu ngi koy bind ci li nga xam ne moom lañ fii rote ci xam-xam waaye même ren àgg na ci créé benn chaîne YouTube boo xam ne bépp conférence boo xam ne mos nañ koo def waxtaan bi mos a def ci les grandes conférences du Laylatul Qadr commencé nañ ko ci dugal te bala ñoo bàyyi lépp lu ci mos a waxtaanee ci table ba nëgë ni bu ba at tukki ku fa dugg diñ ko mën a gis kon loolu lépp rek mu nekk li nga xamante ni bi xaj na sunu participation la ci liggéey ba mu nga xam ne liggéey la bopp ñëpp ñoo ko war a seq kenn ku nekk war cee def loxoom ngir ñu mën a téyal sëriñ bi li nga xam ne moom lañu ñu fi bàyyeel ngir ñu mën a yee ndaw ñi mën leen a jàngal ba ñu mën a taxaw taxaw bi nga xamante ne bi taxaw bi mat sëkk lay doon taxaw bi nga xamante ne bi mooy taxaw bi ñu war taxaw sëriñ taxaw diine ji ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaasal minna